Ooh. Tuan men pici uh, a akter Muhammadu Mahdi Ibrahim ya andi cek uh, en direct uh, um, Baye Mokhtar TV ñu andi seek ak suñu di Mansour Touré kon nag ñu ngi leen di nuyu ñëwaat nañ ñu ko defee woon ci añ rek lañ koy defee waat ci reer yi dafa mel oustaz Omar a ngi taxaw ak suñu grand Omar Cissé ak suñu grand cons bu muy Ibrahima Touré kon nag ñu ngi leen di jaajëfal rek ñu ko defoon ci añ rek non lañ ko defé ci rer fi ci kër Mouhamadul Mahdi Ibrahim nias en direct a fi ci Baye muftar TV asalaamaaleykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ya Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah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 di leen ziyaara ci weeru tedd wii nga xam ne weer wu sell la léppam dafa sell weer wu tedd la waaye léppam dafa tedd ñu leen ci ndokkee di leen ci ziyaara ni ko bàyyi waxee woon nga xam ne daf ne suma weer la kon ñu ko ci ndokkeel di ñaan yàlla lépp luñ ci yëngatu bépp xarakaat buñ ci def rek yal na yàlla nangu ñun bàyyi daf ñu dimbale ci dimbali ñu ci baatin ndax alquran dafa ñëw di ñu léebal comme alquran dafa ñëw di ñu léebal léeb bu ñëwee dafa laaj ñi firi ko nit ñi war nañee di war nañoo jog ñu dem bàyyi xel liggéeyu liggéeyu Baye Niass Cheikh Ibrahim Niass nañ jóg ñu jëm jëm ci góob jëm ci gëstu ji ñi ci gën am importance nag mooy ndaw yi ndax ñoom ñoo yor xawli bi ñoo yor bagage ndaw ci la lépp di baaxee moo tax bàyyi bi mu jógee rek ci ndaw ñi la dal kon ndaw ñi am nañ liggéey bu rëy ñu kontaan nag ci Seydi Mouhamadul Mansour mi ak Seydi Mour ñi nga xam ne ñoo amee Mokhtar TV bi di ci liggéey liggéey bu rëy liggéey bu rëy liggéey bu mucc ayib na ndax jamono bu nekk ñun ñu ngi ciy am dégg ndax jamono bii lépp looy def rek lépp looy def rek mu ngi mu ngi mu ngi tasaaroo ci àdduna bi te seen liggéey boobu ñun gis nañ ko ba ci àll bi sax léegi boo demee yaa ngi dégg Baye Mokhtar TV loolu am nañ ci kontaan bu baax a baax a baax waaw léegi nag ñun Baye daf ñu dimbale génneel ñi alquran gis nga li may wax gaay may naan alquran aaye boo gis yàlla daf ko kot gis nga aay yi ngay gis noonu application yi ci nekk yooyu code la da ngay dem ci mag ñi ñi décoté ko nga jënoog bagage loolu la ñu bàyyi indil bàyyi moo nit ñe alquran nee na huwa awal wal axir wa zahiru wal batin awalu yàlla nee maa fi nekkoon laaxiru yàlla nee na maa maa fi mujj laaxiru mu maa fi mujj zahiru mu ne maa feeñ ba loo gis mën a baas mi mu ne ma maan nëbb ba loo mënta loo mënta gis rek mën a leer na bu delu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci man ngeen jógee ci man ngeen di del siwaat waaye wéy ko ne inna lil muhaymini suma inna ilayhi raji'un waaye wa way xataaka waaye mu ne inna ñun lil muhaymini ñeel nañ muhaymin ci tur yàlla yëpp wa inna ñun raaji'uun suñu delluwaay delluwaay ci yàlla day wawe xataa te toskere nag ñeexal na ki xamul ni muy jóge ci yàlla ak ni muy delloo ci yàlla loolu yal nañ ci yàlla musal dégg nga ba mu ne ci hadisul xudsi yi kuntu kanzan lam u'raf fa ahbabtu an u'raf fa xalaxtu xalqan xaqiqatul muhammad yi génn fa bii nag yaarifuuni kon xaqiqatul muhammad yi boobu fa bii yaarifuuni ndax mu fa kuntu kanzan bàyyi yàlla mu ne nekkoon naa de mel na magasin buñ tëj kenn xamul ma bëgg ñu xam ma fa xalaxtu xalxan ma bindoo waxul ma bind de firikari dañ bàyyi xel waxul ma bind daf ne ma bindoo bu fekkee dafa bind moom lam bindoon fa moom mu fa waaye daf na ma bindoo kon maa soppeekuwut xëy mu ne ma bindoo te bii ci bindoo googu yaarifoon lañ may xamee yonentu ne kuntu nabiyan بالنبوة عالم وآدم بين الماء والتين mu ne man de kan su boobu yàlla doon wax nekkoon na fa da xam sama yonent Seexu Tijaani ñëw ne kuntu waliyan aliman bi wilayati wa adama baynal maay wa tiini kan su boobu yàlla da wax nekkoon na fa da xam sama wilaaya bi dëj dëpp gi ñëwee bi kan si yët kat qabla taaruf

am na solo surtout ndaw yi gis nga YouTube bi Mouhamadul Mansour amee lu na fi ni ñu ngi ko ciy def ñu ngi ko ci traduire dégg nga dugg ci biir YouTube bi lu ne ñu koy mën a génnee tubaab bi ñoo ñuy dimbale loolu waaye léegi nag alquran ay boo gis code la te mag ñoo koy décoté lu tax ñun ñuy doomi jullit duñ jéem a dem ñu décoté mag ñu décoté la ñu ay yi ñu jënoog bagage buñ ko defoon rek bàyyi mu ne buñ ko defoon rek noppal kon am nañ kontaante bu baax ci li ngeen di def nii ndax gërëm nañ ko dimbale ci jamono bu nekk daf ñuy dimbale ci jamono bu nekk jamonoy zahir jamonoy baatin jamonoy bànneex jamonoy xat-xat yëpp lii def ñu dimbale bàyyi ci maqaama moomu la ñu xoo bàyyi na jala jamaaliya wa jalaaliya ya lañuy bàyyi di xoo waaw moo tax ci bu jëf mu ne balaa nga ko xéen dëgg booba aw naqar feeñ boo xoolee barxaama ñës gis ko muy muy maqaama moomu ci lay xoo taalibe su ko defee naqar wi ak bànneex bi li Seydina Ali waxoon ne man naqar ak bànneex ñaari fas yi ñaari góor laa leen def taxawal na sama buntu nekk su ma xëyee ma ci njëkk a war rek jeex na moo sama yoon nekkatu ci maqaam moom la taalibe yi li ci war a lijjanti ñu ngi di sant waa Muxtar TV di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di am kontaan ci li ngeen nekk nii di leen ci ñaanal yàlla mu may leen ci kàttan may leen ci yokkute ci zaahir ak ci baatin ndaw ngeen yal na ngeen nekk mag kàddu yi lañ bëggoon a sànni wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon oustaz Oumar Touré lañ ci ànduloon a ah, fii ci ah, Baye Moukhtar TV a ah, fii ci kër Mouhamadul Mahdi Ibrahim Niass kon ñu defa noonu rek dajoog suñu grand di Omar Cissé moom moo nekk nag ci wàllu togg yi depuis nag tey mooy ñetti fan lépp moom moo nekk ci loxoom ci wàllu togg geeg reer beeg añ beeg ndekki lépp ci loxoom la nekk suñu grand du suñu lépp kon nag dañ lay delloowaat kaddu gi rek kon ni ñu ko defee woon ci añee rek nga fere frontière ñi tey liñ ñu defal ci añ ak li ñuy defal ci ndékke ak li ñuy defal ci reer mhm. ñu xam naka la ñu xam na ñu xam waaw nga ci biir bi nga wara liggey ak li nga liggey yef inshallah jeri jeri assalamu alaykum wa rahmatullahi ñu ngi nuyu beneen yoon fii ci buntu kër Baye Mody Baye comme ni ñu koy waxee ba tey rek xañee defar nañ ko moom paré xañee nit ñi xamné ci rër la nekk ni ci nit ñu góor ñi yóbbul nañ ci si biir réer nañu pare tey nag ñu ko pour a def place pour a def waaw place pour a def sukk yaa fa lañ def ak compétiteur moom lañ ko baaxal ni moom lañ def seen guddi gi defar nañ defar nañ ñu commencé di leen reer nii képp bëgg reer rek bisimilah ñu laa bisimilah bi di ko bàyyi mari fi nga reer dala wa jàmm jox la ndox ak boisson nga naan incha jaar gi kon niñ ko defee rek comme ci añi noonu lañ ko wati ci reer yi yaakaar naa ne añi ñëpp gisoon nañ ci seen bopp fii ci Mbaye TV ñëpp gis nañ ci seen bopp añ bi ñëpp añ reer nañ ba ñëpp kontaan kon yaakaar naa ne ah kon damay dem sama mbokk ñi rek nek joxe sa contribution a ah, fi ci ah, bay Mokhtar TV kon ah, kon dafa melni yow ya yeen jigen ni ya suñ njiit lepp lu fi tang yeen ko tangal lepp lu fi sedd yeen ko sedda kon yeen nañ dañ leen di ngala ma rek kon nak ngeen ci ak bay Mokhtar TV yeen ñep kontaan nañ ci yeen gis nañ agni ñu ngeen taxawoo gis nañ reer bi tamit non la yow nag dañ bëggoon nga xamal ñu tey reer bi li ngeen ko def neex na parce que ñam nañ ko xam nañ li ci ne xam naa ne tamit sonn ngeen ci lool waaye ñu ngi leen di jaajëfal tamit ñu bëggoon rek nga waxtaan ci jeune délégation. waaw gis nga ko rek de reer bi daal comme sa ne añ bi demoon rek ndax añ bi gars yi toppatoo nañ ko defar ko ba mu rafet ñaawale ko si yoon daal waaye reer bi itam gis nga ko ni ko Omar daay defee jigéen ñi daal. léegi moom man daanaka daal wàcce nañ ma ci wàllu togg bi daal waaw man daal ci wàllu fekkee bu ko jëm soble mais yooyu moom si laa nekkoon toppatoo nañ ko daal ba mu fekk togg nañ ko togg bu neex ñu supp lañ ko def daal léegi moom xam naa ne xale yi kontaan nañ trop wax dëgg yàlla daayira ba daal ñu ngi ñaan gune yi moom liñ lébét yal na yàlla sotti ko yal na ko yàlla sotti ko suñu kanam sotti ko si yaramon sedd ñun ndaw ñun ñu nga xam ne ñoo mag ñi doon yal na leen benn si bañ ñeme yal nañ jikki baax ndañ ñoom bañ ñeme yàlla bi yàlla doon yal na yàlla yokk daara bi yokk tawit yokk wit yaram yokk ko talab bu tàggal ba seen tàggal ba aleykum salaam aram kontaan nañ waaw ñu ñëwaat suñu beneen yaay di yaa faatu moom it ah, nekk ci njiiti jigéen ñi moom it ah, ci xuddaamul faydu ah, benn moom tamit ci njiiti la ku ku mën liggéeyam kon nag ñu lay nuyu salaamaaleykum salaam rahmatullah daara ñoom nga xam moom kontaan rek kontaan lu neex rek waaw léegi daal barki démb ba léegi daal ma sama xol dafa mel ni galaas la si dugal daal su ma kontaanee daal mënu ma ko wax daal waaw waaw après bay ma paar touré ak bay ma daal bu ko tuddee rek sama yaram dafa dee yow koon waaw kam daal neex ba dee rek waaw neex ba dee lekk gi neex na naan bëri nañ waaw suñu xol seet na guy kontaan nañ si bay ma paar touré ak bay ma di ñax si yaar yàlla yàlla yàggal suñu kanam ñëpp teewee nañ ko xat yàlla nañ ko teewee ndëgam déwén déwén mbooloo daayira bi yàlla yokk ko te bañ koo ko daabul fay di sant naa leen di leen gërëm surtout sabab bi nag maa sant di leen dina ñaan wa rahmatullah ah, kon asne ah, bi di Modou Kara kon nag ñu leen di nuyu yéen di leen bu baax di leen jox kon ñu ngi woon fii ci kër Mahdi Ibrahim Niass ñu ànd ci woon ak ah, Baye Mokhtar TV ànd ceeg Mansour Touré ak Modou Kara kon nak ni ko defee won ci agni rek non lañ ko mujjé defaatee kon nak ñu ngi leen di jaajëfal yëpp ñen tek fofu seeni baram ñu ñëwaat beneen yoon inshallah du yàgg dara bu réri maté matee bu soobee yàlla dana lépp lu ci da ngeen gis lu extraordinaire parce que Baye Moukhtar ci fi mom lañ ci andal tay ci gamu Medina Baye 2022 ci kaw lang dangaan ci Medina Baye kon nak ñu leen di nuyu ñen tek seen baram fofu inshallah ba benen yoon ñu ngi ñëwaat.